tey dama sawar ñëw fii ci ndigalu madame Ndeye Saly Diop Dieng pour fekke ci jotaay bi indi ci ay seede ci liñ ci xam ma wax sànq ci suma kàddu ci njëlbeen ne bi investiture yi amee ba pare ministre Ndeye Saly Diop Dieng daf ne ma woon ah xale yi ak jigéen ñi bi investiture yi jàllee ba noppi rafet na ñu mën a dem waxtaan ak ñoom xalal leen xamal leen sababu njiitu réew mi ci tànneef yi mu def pour que kenn bañ cee mer au contraire ñëpp mànkoo jàppoo continuer liggéey bi ci ni mu ko bëggee te buñ ko defee noonu incha allah buñ ca yeggee ca càppandaw ga danañ am ndam loolu bi mu amee ma ne ah waxtaane woon nañ ko fii ci bërëb bii la woon ci kaw à l'étage yéen ñi ñëpp teewe woon ngeen ko wala boog ñu ci gën a am solo kàddu ga ñu nday sali dénkoon pour ñu wax ko fi bañ ko waxee ca càppandaw ga bañ ca accès lu ñu gis mooy listu benn Bokk Yaakaar bokk na ci list yi nga xam ne néew na gaa waaye ci list yi nga xam ne ñoo gañe fii ci biir Ndakaaru kon donc dégg ndigalu kilifa ah roy ko ci gis-gisu njiitu réew mi loolu buñ ko defee te triché wuñu rek yàlla danañu may ndam te loolu lañu def ba yàlla may ñu ndam kon donc tricher amu ci def ci naka sudul noonu amu ci ndax bu ñu ko defoon tey amaana ndam lii am tey duñ ko am kon donc Ndeye Saly ndam li ndamam la ndam li ndamu jigéen ñi la ndam li ndamu góor ñi la ndam li ma dolli ci teg ci nag ne ndamu Jean Baptiste la ndax moom mooy maire loolu la yàlla dogal moom lañ tànn jiital ko bu li yëpp amee mu jiitu yàlla def si ndam moom moo dégg monsieur le maire tey ñu di ko sant rek di ko féliciter di féliciter nag képp koo xam ne fal nañ la maire bi ñu génnee ci élection yi di leen ñaanal li nga xam ne mooy yéene doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ jiite ñu mote ko ba egge ci lii mooy taxawaayu Ndeye Saly ak ñi mu àndal di continuer nag di liggéey pour li nga xam ne mooy yéene njiitu réew mi Macky Sall fii ci gox bi loolu mën a am kon nag tey kenn gañewul kenn pertul buñ koy xool bu baax a baax a baax dañ naan c'est le peuple sénégalais qui a ndax moo honnête yi mëninam ba su vote jot ñu dem vote ci yar ak teggin amul xiiroo amul ŋaayoo ngoon si résultat yi génn ku nekk la nga am ñu jox la ko ñu félicitante jàppoo liggéey suñu réew te avancé loolu mooy jàmm te jàmm ci la lépp xaj ñi bokkoon nag kër bokkoon njaboot muy baa Benno Bokk Yaakaar ñooñu ci seen biir kenn mënul génne résultat bi kenn ci moroomam ci biir waa PS liggéey nañ ci waa réew mi liggéey nañ ci waa AFP liggéey nañ ci waa APR liggéey nañ ci waaye ci leader yi ñu ràññee ci ñoo xam ne gàcce ngàllam ñoom ku ci mel ne Ndeye Saly Diop yéen ko seede yéen journaliste yi yéen ko seede yéen jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne yéen a toog li xew démb naxari leen ngeen ne lii mënuñu koo noppiwale dañuy oote daje wax ak journaliste yi xamal leen li am foofu nag suma kàddu sànq taxawuma ci ndax xam nga wax ak onek jëf dafa am lu ci am lu ci am solo man jëf laa leen bëgg on ci ay image vidéo bu si kaname ngeen gisal seen bopp fam dugg la mu def la mu wax la mu liggéey yëpp ba tey ndam li am fi kon gàcce gàllama day sali gàcce ngàllama yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom gàcce ngàllama ndaw yi nga xam ne it ñu ànd ak moom ndax bu dul woon yéen xëj na li am ci yeneen communes yi dana fi doon am waaye yéen yépp ngeen mànkoo ànd xàccandoo dóorandoo moo waral tey li am am loolu kenn mënu ko dindi du man du Jean Baptiste du Massamba du Mademba ndax loolu loolu la yàlla dogal li ci des rek mooy félicité ñi gagné te mooy ñan mooy yéen ñi waa benn bokk yaakaar yéen la ñuy félicité félicité peuple bi félicité ñi dëkk ci dëkk bi di ñaan yàlla nag ñi ñu jiital ñoo ñu mote lañ leen doon jiitale ñun ñëpp nag ñu fas yéene jug ànd jàppale leen ba lañ dem bëgg a def pour mu jëmale suñuy gox kanam loolee mën a jàppandi lii mooy sabab bi di wax ne nag Ndeye Saly ci boppam bëggoon na ñëw fekk si leen yéen jigéen ñi ak ndaw ñi ci seen jotaay bi waaye liggéey bi mu yor fas yéene ko doxal incha allah te am daje bu am solo bu war a am jàdd ci fan yu néew loolu la nekk di nafar ak techniciens yi pour waajal ko ci pour taxawaayu Sénégal ci bés boobaa mu nekk taxawaay bu mucc ayib li tax tey mënul ñëw fekke si jotaay bi waaye mu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu it journalistes yi ci uyu biñ ko uyu si leen ko. pour que li nga xam ne mooy xibaar xibaar bi nga xam ne mooy xibaaru dëgg xibaar bi nga xam ne boo ko tegee jottali ko kenn du ne la lii amul loole ñu mën koo jot ba mën ko jottali ah naataangoom yi nga xam ne nag ñoo fi nekk tey muy ñoom Caane Jeey muy Daam Diouf muy ñi fi ne ñëpp kenn ku nekk tour dana jël parole ndax kenn ku nekk am nga noo dundee li fi xew démb nga mën a wax li ci sa xel ak sa xol ci ni mu gën a amee solo ba ñi ñuy coow ñooy tey ñëw fekk si fii di ñu déglu mën cee jële njàngat mu nekk loo xam ne njëriñ dong lay jur pour ci suñu commune njëriñ dong lay jur pour suñu réew bii di Sénégal donc maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois mais comme ni ngeen xam rek effectivement tout à l'heure tu as dit que Jean-Baptiste qui boppam a été élu on le félicite c'est nous tous qui le félicitons euh, na mais li ñu xam ne moom la ñuy dinga timit wax ne tey ñun dañu taxaw ci wàllu conférence de presse pour expliquer à tout le monde ce qui s'est passé réellement parce que moom barke démb dafa def une sortie sortie bi lu mu ci wax mooy leen def naa sama campagne gisuma Ndeye Saly deful campagne loolu wax na ko ci conférence de presse bi te yàgg na ko wax ñun nag tontu woo ci woon toppatoo ci dañu ñëw continuer suñu liggéey ak lay sal di rappeler toujours que effectivement Jean a été choisi je ne dirais même pas choisi mais dafa profité dafa bénéficié wu ci lu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne dañu ko keroog bu ñu créer le Benno Bokk Yaakaar Il y a des dispositions qui ont été prises. Le président Macky avait dit, avec tous les autres membres du Bénin, des Ousmane Tanodiens, que ñu ngi départ, mais nous bañ problème. mooy pour tous les postes électifs, pour qu'il faga gagner, yow yaa koy xel di yor ba les prochaines mooy élections yi <coughs> naturellement d'ailleurs boo leen xoolee dans le département de Dakar tous les postes de députés dañu ko joxoon le parti socialiste parce que boobu parti socialiste ak taxawu benn la woon moo tax dans le département de Dakar ñi demoon aux élections jëli c'est les socialistes plus benn AFP te ñoom rek ñoo postulé woon te loolu ci protocole bi nga xam ne moom moo le les les les membre membres du du Benno Bokk Yaakaar ci la bokkoon le haut conseil <coughs> fekk éclatement bi am taxawu dem ñu séddaluñu ko. ñu on a eu deux postes ñoom ñu am deux postes ñu dem aux élections ñun suñu yi nga xam ne la coalition kat la amoon mooy Samba le maire de de de de de Cambérène deuxième candidate bi mooy Khady Diouf la présidente des femmes biscuiteries de l'autre côté ñu jox leen seen wàll ñu def fa Cheikh Dieye ak Aïssatou Fall yàlla dogal ñu dem élection yi ñoom ñu gagné. Cheikh Gueye ak Aïssatou Fall dem nekk au conseil ma Macky rétablir l'équilibre as Aïssatou Tamba Ndiaye assistant mu nommé ko par décret madame Ndèye Saly Dieng mu nommé ko par décret c'est après que les partis bu nekk ministre alors donc ñu mën a jàpp ne c'est le protocole moom moo éliminé Ndèye Saly donc il a se vanter ni quoi que soit effectivement, Maki, en gentleman, il a dit qu'il respectait en tout cas le protocole et tous les maires socialistes du département n'ont pas été Motax, Bande Tok, Motax, Alundoy Tok, Motax, Samba moo Motax, Jean-Baptiste Tok. Donc, jàpp ne il a été choisi dans le cadre de ce protocole bokk yaakaar xëy na du moom amul Il a été choisi dans le cadre de ce protocole. Non, Macky a dit à Ndeye Saly dama bugg nga bàyyi xam naa li nga liggéey et tout Grand Dakar savait que Macky Ndeye euh, Saly a travaillé Ndeye Saly liggéey na boo waa Grand Dakar dugg na ko sondage yi ñu joxe mooy 60 pour cent d' intention de vote contre Jean-Baptiste et Macky le savait mais puisque c' est un gentleman il a dit non comme man ñoo ak ñoom Ousmane Tanor ñoo ko seqoon ne Ndeye Saly may ma loolu mais dafa métti elle a travaillé d'arrache-pied dem boo conquérir dans le de des grands Dakarois nga xëy na ko bàyyil à cause d'un protocole et puisque c'est une femme de valeur elle est venue elle nous a le problème moi je connais le protocole ma ne ko effectivement je m'y attendais mu ne ma métti na popularité yi mais na ngeen dox ci biir nit ñi xam naa ne xale yi mer nañu ngeen defal leen pour ñu jàppale voter le Benno Bokk Yaakaar et c'est politique elle ne va pas scier la branche sur laquelle elle non kon nag bi ñu waxee loolu ñu désigner le camarade Jean-Baptiste s'il était élégant s'il était un rassembleur nga bokk ak nit ñu ne la choisir nañu yow la da nga waroon woo ñëpp defal xol yi wax ñëpp ñëpp boog l'unité de kër ku ñu def songu liggéey mais il ne l'a pas fait quand les gens l'ont interpellé qu'est-ce qu'il a dit ñu ñëw bu ñu buggee liggéey c'est pas élégant du yëfu nit ku baax alors ñu dem toy ñu dugg ci élection yi ñu dugg ci campagne bi comme ñëpp xamoon nañ ne que il était faible les gens nous ont dit daam jàppale ci madame Ndeye Saly jàpp ci on a fait toutes les maisons de grande Dakar waa Grand Dakar a ngi fii ñu ngi may dégg on a fait toutes les maisons jusque tard la nuit di informer nit ci di waxtaan ak ñoom di leen defal on a doon euh, créé jour benn bés am na benn euh, calebasse bu ñu fi créé y avait je crois combien de calebasses 90 calebasses mu réunir tout le monde appuyé sur le financement et appuyé en même temps jigéen ñoo xam ne Jean Baptiste la ñu àndal kon nag kooku nañ jàpp nit la ci di wax di ko diingat xam na ne moom day sànni du moromam waaw Sur le plan des valeurs, elle le démontre chaque jour. Moi, je dis, je suis un politicien. Je ne suis pas un supporter. Je suis un politicien. Je suis un socialiste orthodoxe. Mon socialiste, là, moi, socialiste. Je suis le secrétaire adjoint de la coordination. Je suis euh, adjoint au maire. kon nag bu ñu nekkee loolu yor doomu tànk yooyu ne jonn di défendre le Benno c'est défendre le parti socialiste ñu dem on a fait une très belle campagne une campagne extrêmement difficile on a fait le tour de toutes les maisons jusque tard la nuit élection ñu jóg xale yi jóg les électeurs ñëpp maison par maison ñu dem voter te boobu ñëpp xamoon nañu ne bu ci Ndeye Sali jàppul làmbaay dina ñaaw et tiitoon na parce que à chaque fois day wax xale yi seet leen ndax ñoom euh, ndax ndax euh, Ndeye Saly génn na on dit oui mu ngi sur le terrain loolu moo tax mu ci et euh, am na loo xam ne kenn tu ko jeex c'est une pure vérité que Ndeye Saly bu dul woon moom tey avec la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom lay diriger bu dul woon moom tey làmbaay ñaaw mais ñun euh, Jean 3000 et quelques voix la léegi il est à 240. Mmh. bu fekkoon ne am na xel c'est pas un maire légitime. tout à fait. waaw c'est pas un maire légitime. kon nag na am ngor reconnaître ne Ndeye Saly Dieng jàppale ne ko Ndeye Saly Dieng campagne yi ba tëdd ci suuf Ndeye Saly Dieng lépp lu mu amoon def na ko ci def ci alalam def ci santé bi. c'est pas élégant c'est malhonnête de sa part dem ba gagné mu wóor la ne dem nga dem nga dem nga dem nga tribunal le tribunal a a confirmé nga ne alhamdulilah la bi génne sa caay-caayu bopp génne sa jàpp fay lu di wax yéen il n'a qu'à se ressaisir il n'a qu'à se parce que nous le suivons nous sommes là pour le Benno Bokk Yaakaar nous voulons une gestion saine boo xam ne le Benno va le réclamer parce que loolu mooy war mooy li nga xam ne dinañ ko accompagner nag mais da ngay accompagner koo xam ne bëgg na xeex yi mu xeex yëpp gis nañ ko moi je suis le vice le secrétaire général adjoint de la coordination socialiste je suis adjoint au maire Macky ba mu ko joxee ne écoutez je ne veux pas je ne la main à Ndeye Saly deux fois fexel ba def des listes yoo xam ne moom dina ci gis boppam mu ne ko d'accord monsieur le président bi mu làqoo qu'est-ce qu'il a fait jël nitu Idrissa Sall yëpp dugg moi en tant qu'adjoint maire secrétaire général adjoint il m'a mis vingt-troisième suppléant et sur la proportionnelle mais moi xamul ne moi je suis un politicien xamul ne moi il y a longtemps que j'ai déclaré par rapport à mon âge dootuma dem élection ak xale yi nga xam ne sama sët la ñu ak sama jabar et j'avais dit que lu ma fi jot ak consensus kon nag xam ne ñun nous sommes des hommes de valeur des hommes et des femmes de valeur yoo xam ne dañu am fula am jom mën na wax waaw <coughs> alors euh, euh, euh, euh, euh hmm? alors tem ñu ngeen jàpp leen et nous on était on s'est battu parce qu'on savait ce qui allait se passer sur le terrain moi personnellement j'ai dit dans les instances du parti socialiste bi ñu bokk maag moom que lui, il n'est pas Benno. Et il y longtemps que je le disais, Jean-Baptiste n'est pas Benno Bokéa. Et pour vous dire qu'il n'est pas Benno Bokéa, Ndeychali a tout fait pour Dubogmo. Il nous a appelés en réunion pendant que j'étais dans la coordination. La salle était pleine. Birandia était là-bas. Tout le monde. Ndeychali Nyoleko, monsieur le maire, je suis venu vous voir. je suis venu de la part du président de la république nee na ma ma ñëw toog sa wet liggéey jàppale ko parce que majoritaire à Grand Dakar et je le reconnais donc ma li may def moo leen je me mets à votre disposition vraiment ñu jàpp nga xam ne tey euh, euh, euh, ñoo bokk ñoo bokk benn bokk yaakaar te maa ngi sa gannaaw foo ma joxoñ ne dama jàpp fa la ma jàpp mais kooku jàmm la bu mm-hmm. mais pour toute réponse mu ne ko <laughs> xam nga ne man doole ji maa ko yor. waaye le médecin le si ah le médecin la waxoon. waaw fii maa ko moom ku fi bugg dara ci man ngay jaar. ndeysaan ne ko d'accord moo tax ba seet si la mais imagine-toi moi j'étais de l'autre avec lui mais j'avais honte j'avais honte Ndeye Saly a tout fait Ndeye Saly a envoyé les imams de Grand Dakar pour dem nekkoon te dama bëgg ku ma jubal léegi ndeysaan parce que man Macky Sall rek laa gëm te luy defar affaire Macky man nangu naa ko bu ñu demee c'était la même chose ndey nag Sali ku ko xam xam ne dëgg nga ko fekkee bi ñu ko investir député on a tout fait avec Ndeye Sali moi j'étais le président du comité électoral ñu dem man maa waroon jëli xaalis bi nga xam ne moo war a war ñu toog ñëpp jot gisuñu suñu xaalis fu nekk ñu xool seet ko fa ba benn bés nit day ma ne laajal Jean ma ñëw fekk man ak Ndeye Sali ñu toog ak Toulouse ma ne ko Jean nous voulons ne waaw jël naa ko mais jël naa ci 600000 jël naa ay pistolet jël naa jaasi bi ma ne ko tu l'as détourné Sali jël parole ne ko li nga def du yoon. biraan jël parole ni ko li nga def du yoon mu ne en tout cas jël naa ko teg ñu six cent deuxième tranche bi mu ñëwee aussi loolu la def kon nag nit koo xam ne vraiment ku crédible ku li fi yëpp Ndeye Saly jàpp na foofu moom ah kon nañu jàpp ne Ndeye Saly liggéey na corps et âme ñun ñi xeex nañu jàpp nañ ci ba fu ñu jëm accompagner nañ ko te résultat bu génnee nag na am élégance na ñëpp merci parce que liggéey bu jotee boo gañee Il faut être élégant pour dire à tout merci jërëjëf mais di diingat di jiñaate di gasal nit ay kamb di wax ay yoo xam ne seen mbaa sax kooku du yoon kon nag euh, ci loolu la wax ne mooy suñu problème bu loolu ñun du gagné maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu bu baax gannaaw bu ma sant yàlla julli si Mouhamadou Rasulullah maa ngi nuyu waa Grand Dakar di beral nuyoo nag son excellence la président Macky Sall di ko nuyu bu baax di ko di ko tatagal di ko félicité itam parce que kenn umpalewul ni élection passé na jàmm rek xew kenn dootul wax ni Sénégal amul démocratie donc loolu dañ siy félicité son excellence la président Macky Sall du nuyu nag du ko beral nuyoo suñu ministre suñu ministre suñu maire ki ñu jàppale ku taxawu Benno Bokk Yaakaar fii si Grand Dakar muy dem la ministre Ndeye Saly Diop Dieng di beral nuyoo itam le premier magistrat de la commune Jean Baptiste Diouf du ko félicité bu baax moom tam si ndam li ndamu bennoo Bokk Yaakaar damay daal di gàttal rek parce que ñi ma jiitu wax nañ lu bëree bëri li ñu naroon wax yépp daanaka wax nañ ko waaye bu leen umpale nii dañoo gagné ñun waa Grand Dakar suñu liste dafa gagné muy liste Benno Bokk Yaakaar te loolu bu amee fi nga xamante ni si loolu bi nga xamante ni si ñooñu seq Sicap Biscuiterie yi HLM ñun ñu la rëcc. am na une main am na lu ñu génnee foofu loolu benn loxo kese la muy loxo madame la ministre Ndeye Saly Diop Dieng di liggéey bu remarquable bu mu def ci campagne durant 15 jours yi nga xamante ni si yendaluñ man dama feebaroon maa ngi soog kenn quinze jours campagne amul kenn ku noppalu ko ministre daan na def 3 voire même 4 sorties par jour ñuy proximité ba xaaju guddi. ñu ngi si koñu grand mbedd Grand Dakar 99 rue yëpp def nañ ko amul benn bu ñu tëb mu yore nag suñu spécimen marron beige bopp fas bi ni bii mooy liste bu baax bi bii ngeen di jël ñaari yoon benn bi ngeen dugal ko pour suñu commune bii Benno Bokk Yaakaar gañe fii beneen bi ngeen dugal ko pour ville nii lañu liggéeyee nii la ma dem la ministre liggéeyee ba tax ñun ñu rëcc si vague bu màgg bi nga xamante ni si moo daaneel ñëpp bu ñu muccee rek si yeewu askan bi macha allah parce que nag yeewu askan bi bu ñu si rëccee ñun waa Grand Dakar wallaahi liggéeyu madame la ministre la. loolu Sénégal yëpp leer na leen wóor nañ ñëpp te yemul rek si commune am yemul rek si Grand Dakar déedéet 19 commune yëpp la dem. fépp fu ka Calabas nekk rek madame la ministre teg na fa tànkam jàppale na nu mu tudd candidat maire bi nga xamante ne si mooy Benno Bokk Yaakaar xanaa kay way sa bay sa way tànk comme mu ngi koy def si yeneen communes yi si commune am la ko njëkkee parce que nee na fii mooy sama base su ma perte bu ñu pertee man la bu ñu gañee man la parce que ku wax Benno Bokk Yaakaar man ngay wax maa fi ta maa fi taxawal président Macky Sall te ñépp xam nu mu bëggee président loo ko woo si président Macky Sall euh, madame la ministre ñu si la kon moom dafa jàppoon ni bien vrai ki nekk loon tête de de waaye dafa jàpp ni victoire bu amee moom la défaite bu amee moom la boolewu kooku lenn lu dul rek bëgg victoire am donc lii la madame la ministre daf fii si grand si commune bi xanaa kay dañu wax dafa dañoo mën a wax rek di wax ak bañ a mën a bañ a bañ a jaajëfal ki nga xamante ni si moo moo taxani teg cin bi ba mu ba mu walwal yi nga xam dangaa ñëw rek sóor lekk ko xëy na kay noonu la fa demee bu dul woon ministre wallaahi dañu wax ne bu duloon woon tubéy julli ñaaw waaye bu dul woon ministre tam élection yi fii si Grand car ah kon ñu gis musiba waaye gra grâce à elle grâce à elle si campagne si proximité dégg naa ñu nii nag ministre euh, campagne waaw bu campagne kon lan lañ doon def ñun ñun dañu am preuve à l'appui man mi wax ak yéen nii. présidente réseau la boo xam ne ñi ngi wax 90 non du 90 calebasses plus de 100 calebasses yoo xam ne ñun man bokk maa ko validé ak sama équipe plus de 100 calebasses ñu toog ñii ñépp am nañu plus de cent personnes par calebasse maanaam même il suffit que mu tëddoon même bu campagne ul woon na tëdd si kaw lalam rek parce que nag koo ni xaw ma ni ma koy def nam la dafa tax bu tëddoon si kaw lalam karam kaw lalam kese joxe consigne caane jigéen ñi nañ ma nañu voté Benno Bokk Yaakaar barke Mouhamed dañuy voté sans sans sans sans xalaat sans réfléchir parce que moo ñu que moom la yemuñu foofu gis nga tey fi tey jour élection amul benn président calebasse boo xam ni huit heures fekk na la sa kër amul ku ne yaa ngi yore sa liste de plus de du woote ñu tap ñu taftal la à côté xale bu góor benn jeune boo xam ni moo lay jàppale dugalal ko crédit pour ngay woo say say membre calebasse say militant say militante pour ñu dem voté ji kenn kenn kenn kenn kenn kenn ndekkeewul këram madame la ministre nii la nii la defee élection yu passé kon bu ñu gañee grâce à elle victoire bi ñun la te bu ñu waxee Benno Bokk Yaakaar fii si Grand Dakar suñu commune tout xel yëpp si Ndeye Saly la jëm moo fi taxawal APR moo fi taxawal moo fi taxawal président Macky Sall te ni mu ko defee grande car noonu la ko defee si 19 communes yëpp. amul fenn foo xam ne rek madame la ministre taxaw fa lii preuve à l'appui la nee nañ ñun ñu campagne waaw léegi may laaj nga def tey de nga def proximité tous les jours ba jeexal mbedd Grand car yëpp nga def ay meeting. daf ay daf ay meeting si esplanade bi nga xam ne Sénégal yépp seetaan nañ ko nga yemul foofu mu woo say calabas parce que moom base jigéen ñi la à part jeunes yi base ministre c'est les femmes mu woo calabas yépp ku nekk indil sa membre calabas ñu indi ak suñuy carte électeur numéro carte électeur la laajte tey fi tey maa ngi leen di laaj yéen journalistes yi maire bi maa ngi ko ko ñu yéene de day di ko félicité waat encore moom ak conseil bi mu fas yéene liggéeyal parce que ñun dañoo gëm Grand Dakar amuñu fudul Grand Dakar waaye maa ngi leen di laaj est-ce que bu doon moom dong la lan la def Grand Dakar ba war a mun a rëcc ba war a mun a nekkaat maire maa ngi koy laaj tey conseil mi conseiller laa woon maa nga fa woon lan lañu ñu mën a teg baaraam ne lii kat maire bi moo ko def ba tax na jeunes yi ànd nañoo moom femmes yi ànd nañoo moom sages yi ànd nañoo moom mooy jeunes yi ànd nañoo moom loolu lan la laaj naa leen ko donc bu ñu amaatee lii bu ñu amee victoire ñun ñëpp nañ leen ko gërëmee madame la ministre parce que ñun dañoo gëm Benno Bokk Yaakaar te Benno Bokk Yaakaar mooy kaw madame la ministre parce que fu mu euh, adjoint maire PS toog monsieur le maire Dame Diouf toog adjoint maire monsieur le maire Birane Ndiaye toog vraiment Awa Diop toog fa Makalu dafa empêché mu ngi doon ñëw euh, société civile la. Ah, Baare Samb nekk si à côté xanaa lii mooy Benno Bokk Yaakaar. Hmm. kon pourquoi ñu war a voter contre. Hmm. xanaa kay moom dafa to dafa riposté wul parce que ku si nekk na nga toll rek ngay def ku si nekk la nga na nga juddoowee na nga na sa toll na nga mel rek ngay tontu moom. am nañu si ay preuve yu leer moom moo wax ni bu leen voteel bu leen voteel leen Maron Beye sama commune waaye fee lu leen neex def ko am ngeen seen choix tànn leen ku leen neex te moom sax am nañu wax ni dafa joxe consigne pour ñu voter Barthélémy Diaz parce que c'est son cousin ou bien je ne pas ay mbokk kon nag wax dafa jot wax dafa jot moo tax ñu wax victoire bi moom bu fekkoon amoon na garantie di nu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw waxuma la madame la ministre waaye ñun ñu muy doon taseel ci mbedd bi ci terrain bi ñu nekk ay jigéen dina ni jëre ngeen jëf waaye duñu xarab ci kaw gàttal comme ñi ma jiitu wax nañ te ñu des war a wax dañoo bëri maa ngi yem fii di gërëmaat ñëpp di gërëm bu baax nag laa la presse nuyu naa ñëpp sant naa ñëpp jërë ngeen jëf